alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii ci waxtu bu tedd bii ci barab bu tedd bii ñu nekk di dellu siwaat ni nu ko baaxoo defak ak yéen ci ajjuma ju ne ci waxtu wi ci waxtaani ajjuma yi ñuy laabirante ak yéen di tàmbule bi rek ñuy gën a ñaan sunu borom tabaraka wa mu sàmmal nu kilifa gu mag yi nekk ci sunu kanam yokk aw fanam lool dolli ko ak wér lool gën koo tawféexal ba mu mott li wala mu def lu bari ci mébét yi nga xam ne mébétal na ko diini ji waaye mébétal na ko yoon wi te nu ànd ko ak moom sunu waxtaanu tey ñu ngi koy sof rek ci waxtaan yi jiitu woon ci gën a soññaate ci gën gu war a ittewoo sémb bu réy bi nga xam ne kilifa gu mag gi sémbal na ko diini ji sémbal na ko yoon wi muy sémb boo xam ne du ñu noppi di ci wax ndax day sëmb boo xam ne daanaka mën nañoo wax ne amul fu muy yem sunu borom tabaraka wa moo bind doomu aadama wala moo bind mbindeef yëpp allahu xaaliqu kulli shay waaye bi mu bindee mbindeef it mu tànn ci doomu aadama nag teral ko teraanga ju rëy rëy jël ko def ko muy kuutaayam ci kaw suuf inni jaa'ilun fil ardi xalifa muy teraanga ju rëy di war ma ju yoo xam ne sunu borom jox na ko doomu aadama ci nammeelam ak ci ak coobareem waaye bi nga ko ko joxee ba noppi muy teraanga daf ko togg nag ay jëf yu mu war a jëf ci kaw suuf si ngir mën a yeyoo teraanga jooju jëf yooyu bokk na ca jaamu ko moom sunu borom tabaraka wa moom képp ci kaw suuf bañ koo booleeg dara wa ma xalaqtul jinna insa illa li waaye bu ko jaamoo it mu dugal ci biir jaamu gi nag dundalal ko kaw suuf si nga xam ne da koo tàggat li ci nekk lépp mu tàggatal ko doomu aadama wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi ardi jamian minhu lépp mu tàggatal ko doomu aadama ngir mu mën a jariñoo li fi nekk man koo eh, jëfandikoo ci ay soxlaam ñu gis ni nag ñaari soxla yooyu nga xam ne moom la ko suñu borom togg muy jaamu ko te dundalal ko suuf si bañ mën koo jariñoo amu ci benn boo xam ne mën naa dem te xam-xam jiituwu ko kenn mënut a jaamu yàlla te tegoo ko ci xam-xam waaye kenn mënut te dundal suuf si ba jariñoo ko te tegoo ko ci xam-xam moo tax bépp jëm kanam wala bépp avancement boo xam ne nit avancé na ko rek ci wàllu ruux wala ci wàllu màdda ci wàllu zahir walla ci wàllu baatin avancement boobee dara sosu ko lu may xam-xam rek ci lay tegu mooy nattukaay bi nga xam ne ci lañuy ñuy nattee jiitu xeet yi wala seenu des gannaaw xeet wu jiitu ci xeet yi rek ba àdduna soso ba léegi ci xam-xam la nattee ak jiitoom waaye ci ñàkk xam-xam la nattee ak des gannaawam loolu defe naa ñëpp teg nañ ci seen bët xam-xam it mooy li nga xam ne teraanga jooju suñu borom tera teral doomu aadama day mel ni bu ñu doon jéem a xam ban sabab moo tax mu teral ko day mel ni ci biir aaya yi mu ko teralee wax ko ci day mel ni mën nañ cee jëlee ne xam-xam bu mu def ci moom moo tax mu teral ko teraanga ju toll noonu te defu ko ci yeneen fi yi des ndax ba mu ne malaaka yi bind naa doomu aadama dama koy jël def ko muy sama kuutaay ci kaw suuf malaaka yi dañoo jaaxle ne ko yow suñu borom doomu aadama jii nga xam ne yàq rek lay liggéeyee ak tuur deret nga fab ko teg ko ci kaw suuf mu di la fi wuutu te nun ñi nga xam ne yaa nu bind xamuñu lu dul topp la mënuñu laa moy di la sàbbaal guddi ak bëccëg nun defoonu ko def ko doomu aadama mu ne xam naa lu ngeen xamul daal di jël doomu aadama jooju ñuy wax léegi day yàq wala doy loowuñ ko ñoom yi soo jël ko def ci moom loo xam ne nekkul sa malaaka bañ xam ne du seen morom wa allama aadama al asmaa kullaha mu ne mu xamal doomu aadama mu xamal doomu aadama wala doom mu xamal sunu moom aadama lépp loo xam ne xamal na ko ko ci biir yam ko doon xamal ba mu ko ko xamalee ba noppi mu mu ne leen mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne malaaka yi lii ma xamal maam aadama wax leen ma lu mu doon man a gaaral leen ko summa ma alal malaayika lam xamal aadama mu gaaral ko malaaka yi ne leen bu ngeen ko xamee wax leen ko waaye xamuñ ci dara xam ne kon suñu borom leen inni alamu la mun xam naa lu ngeen xamul waaye ba mu ca jógee it mu teralaat doomu aadama beneen teraanga ne ko lii ma wala xamal nag xamal ko malaaka xamal ko malaaka yi jàngal leen ko am bi hum bi asmaihim falamma ambaahum bi asmaihim qaala a aqul lakum inni alamu xayba samawati wal ard wa alamu ma tubduna ma kuntum taktumun mu xon kon yàlla xamal na ko yàlla xamleeloo na ko kon xamal ak xamle ca la teraanga jam am ca la jógee ba mu sut malaaka yi ba mu ëpp daraja malaaka yi kon loolu tegtal na ne kon xam am na solo lool ndax malaaka yi tedd nañ lool duñu def lu dul lu leen yàlla digal waaye duñ def lenn lu leen yàlla teral doomu aadama nag di def li ko yàlla digal la rek muy def li mu ko tere yàlla jël ko tànn ko teg ko ci kanam malaaka yi xamal ko lu leen xamalul te dara waralu ko lu may eh, xam-xam ci boppam moo tedd moo mel noonu loolu moo tàmbalee ci aadama ba ci yonent yi ci jaar yëpp ba agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp xam-xam la leen yàlla joxoon ñu yor ko muy seen daraja bi ñu gën a kawee doomu aadama yépp ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee gis nga la yàlla njëkkee moom jàngal jàngale ca la njëkkee waxee moom daf na ko jàngal te jàngale iqra bismi rabbikal akram iqra bismi rabbikal lazi xalaq jàngal waaye ba na ko jàngal it daf na ko jàngaleel yaa ayyuhal muddathir qum fa andir fa andir jàngaleel li ma la jàngal jàngale ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik jàngaleel li ma la jàngal kon jàng ak jàngale moom la yàlla tàmbulee ca sunu maam aadama terale ko ko waaye moom la tàmbulee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it terale ko ko ngir mu tàmbulee ko ab liggéeyam loolu la Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu xam ca teel lool ba muy e, tàmbali liggéeyam bu nga xam ne mooy yeesal diine moom it mu fab ñaar yooyu daal di koy def muy ay fondement am ci biir liggéey boobu mooy al ibadatu wa imaratul ard jaamu yàlla ak dundal suuf si jaamu yàlla ak dundal suuf si tàggat yàgg yàlla tàggatal nu ko nu war koo jëfandikoo nun ko war a jëfandikoo ba mën koo jariñoo mu fab ñaar yooyu moom def ko muy fondement liggéeyam bii muy jaamu yàlla ak dundal suuf wala jaamu yàlla ak liggéey waaye bi mu xamee ne ñaar yooyu kat li ñuy màgg màgg ak li ñuy te teguwuñ ci xam-xam ñaar amu ci benn boo xam ne mën naa sotti te xam ci xam kon sàkku xam-xam ngir amal ñaar yooyu day nekk waajib ni ñaar yooyu nekkee waajib maa laa yatimmul waajibu illa bihi fa huwa waajib jaamu yàlla waajib la dundal suuf si waajib la waaye ñaari waajib yooyu mënta am te xam-xam amul kon moo tax xam-xam moom it daal di nekk waajib moo tax sëriñ bi moom daal di koy def muy ponk ci ponk yi muy boole ci ponk yoon wi wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fihi mutlaqan rabbu sama mimma ala mukallafin qad xaruma qaddim ala ibadatin taalluma nee na na jiital xam-xam ci jaamu yàlla bala nga koo def kon loolu wane na solo boo xam ne am na ko solo xam-xam nag li muy bari bari ak li muy wuti wuti yëpp ñaari xam-xam rek moo am xam-xam boo xam ne jàng ko fardu ayni la fardu ayni mooy lu mënta ñàkk kenn ku nekk da ko war a xam wala kenn ku nekk da caa war a xam kenn bu toll ni lañ farataal ci yow fardu ayn mooy loo xam ne kenn mu mënu ko ñàkk def loolu xam-xam ban la mooy bépp xam-xam boo xam ne day tax nga mën a def li war ci yow yàlla kat am na lu mu farataal ci yow mënta ñàkk. lay tax nga mën a xam loola ba def ko xam-xam booba farata la ci yow moom la ko imaamul Ghazali wax al ilmu bi kayfiyati l amali l waajibi waqta wujubihi yàlla farataal na ci julli kon bu julli jotee war ngaa jàng yàlla farataal na ci yow azaka bu azaka jotee war ngaa jàng nooy sàkkee azaka yàlla farataal ci yow yor kër bu yor kër jotee war ngaa xam ni ñuy yoree kër yàlla farataal na ci yow jaay ak jënd muy liggéey bu liggéey jotee war ngaa xam lu dagan ak lu araam ci biir njaay moom ak junni bi kon lépp loo xam ne yàlla farataal na ko ci yow saa boo demee ba war koo def xam lu ko day daal doon farata ci yow kon far ah, xam lu googu moom fardu ay ni lay doon ci bépp jullit maa laa yatimul waajib illa bihi fa huwa waajib loolu nag li ci gën am solo mooy li mënta ñàkk ci ab jullit di farata ci jullit bu ci xam-xam yi mooy xam yàlla muy tawxiid xam yàlla ak lan mooy darajaam ba xam ak amam waaye jox ko melo yi yooyu yëpp jombale ko melo yi jomb yëpp waaye daganal ci moom melo yi dagal ci moom yëpp loolu mooy li nit ab jullit mënut a ñàkk xam ci suñu borom tabaraka wa taala xam ne yàlla am na xam na am na melo yu yu rafet yoo xam ne mënut a ñàkk ànd ak moom am na melo yu yu jomb yoo xam ne mënut a ànd ak yàlla waaye am na melo yu dagan yoo xam ne moom it day daa dagan ci yàlla kon loolu ab jullit lu mu néew néew war na koo xam ci ab ak digganteem ak boromam muy farata ci moom ba ca des mooy bu ko xamee ba noppi nag mu xam ni muy jaamoo yàlla yi mu ko digal mu di ay farata nu mu koy jaamoo nu mu koy defee. yooyu it ab fara fardu ay la ci ab jullit waaye bu ko defee ba noppi ni muy sellalee jaamu googa ba xolam sell ba jaamu yaa mën a am njëriñ ci moom loolu kon mënut ñàkk ci moom mooy at tawxid wal fiq wa tasawuf ni ko sëriñ bi waxee radiallahu taala ci masalikul jinaan kon xam-xam bi nga xam ne farata lay doon ci nit ku ne war koo xam mooy ñetti xam-xam yooyu xam-xamu tawxid xam-xamu fiq no nooy jaamoo yàlla waaye xam-xamu tasawuf noo sellalee jaamu ga ba yàlla nangu ko tabaraka wa taala beneen xam-xam ba des nag mooy xam-xam boo xam ne moom xam ñu ko fardu kifaaya la warul ñëpp waaye faw am ñu jóg xam ñu ko wàcce ko ñi ci des ñëpp buñ ko bàyyee kenn xam ñu ko ñëpp daal di am bakkaar loolu mooy fardu kifaaya moom it kullu ilmin laa naa anhu fi quwaami umuri dunia bépp xam-xam boo xam ne dundug àdduna gii mënu su cee nekk mu teey te xam-xam boobu amut bépp xam-xam boo xam ne nit ñi mënuñoo dund seenu dund gi leen yàlla sàkkal ci àdduna mënuñ koo dund dund bu baax te xam-xam boobu amul bu ñàkkee rek dund bi day daal di xajam dund bi day daal nekk loo xam ne du mën a teey ci ñoom xam-xam yooyu bari na lool te muy yu am solo muy xam-xamu faj nit ñi day yàllaa leen di teg ay co ay ay ay ay tawat tawat yooyu mu wut ay saafara ñu war a gëstu ba xam saafara yooyu di ko faj loolu it day doon xam-xam boo xam ne comme fa xam lu ko fardu kifaaya lay doon xam-xamu xisaab ñu di wax mathématique. ñu ko war a jàng ndax lu tax ñu ko jàng lu bari ci suñuy jëflante ci alal lu bari suñuy jëflante ci miiraas ak la ca aju daa aju ci xam boobu ñu war koo jàng ba mën koo jëfee ni ko yàlla diglee xam-xam bu aju ci mbay nit ñi dañoo war a lekk dañoo war a naan te mbay mooy tax am loolu kon jàng xam-xam buy tax ñu am lu ñu mën a dunde loolu day nekk loo xam ne fardu kifaaya la waaye jàng xam-xam boo xam ne mu dee rabb mu dee ñaw ak lépp loo xam ne dana may nit ñi ñu mën a suturaal seen awra ñu leen ko yàlla digalee xam lu ko day nekk fardu kifaaya ba ca sax xam-xam boo xam ne moom lañ ci gën a woyofal te tam am solo mooy xam-xamu politique bi ñuy wax xam lu ko sax day nekk fardu kifaaya ndax politique du dara lu may mu ñuy saytoo mbirum nit ñi bañ mën a dund ci seen àdduna dund gu baax bu génnee àdduna sunu borom tabaraka wa taala dugal leen ajana loolu rek mooy politique saytu mbirum nit ñi rek ci àdduna bañ mën a dund dund gu teey mën a euh, génn àdduna dem Euh, dem àjjana loolu nag mënut a ñàkk ci aw xeet kon loolu moom it xam-xam yooyu yëpp day nekk fardu kifaaya kon ci ab jullit kon war dañuy góor war nañ ci góorgóorlu saa boo xamee ne réew ñàkk na loolu rek ñëpp dañu yàlla di ànd nekk bakkaar saa bu ñu demee ba réew mi amuñu ñu leen faj réew mi amuñu xam-xam buñ mën a bay bal am luñ dundee amuñu xam-xam buñ mën a am ba am luñ sol buñ mën a eh, xam ba ba mën a am luñ sol amuñu xam-xam buñ mën a am ba mën a set set eh, so soppi seen i mbir saytu seen i mbir ba mën a dund ci àdduna ji muy politique loolu saa bu ñu demee ba am réew ñàkk ko kenn defatu ko rek ñëpp dañu daal di am bàkkaar kon ñaari xam-xam yooyu rek moo am xam-xam boo xam ne farata la ci bépp jullit bu ne da nga ko war a xam waaye xam-xam boo xam ne du farata ci ñëpp waaye faw am ñu ko jógee taxawee ko bu ko defee ñeneen ña daal di wàcc leen loolu nag sëriñ bi yàgg nañu koo wax lool suñ ko déggoon ba mu ko waxee kon léegi ni fi ñu nekk danañ ko weesu bu baax a baax woon na xam-xam daal bi gën ci xam-xam yi mooy xam-xam bu lay tax a jege sa borom nga ne ko mooy ban mu ne kal aqli wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manaafi a yëf yi ñaari bayit yooyu benn dajale la xam-xam yooyu ñu waxoon yëpp kal aqdi wal fiqi wa ka tasawufi mooy xam yàlla noo koy jaamoo noo sellal jaamu ga waaye yemul ci loolu mu ne wa kulli ilmin bi manaafi xam-xam bu amul njariñ xam-xam yooyu ma tudd yëpp yu amul njariñ doomu aadama la ci àdduna te amul lor bu ko defee xam-xam la ko moom day nekk nekk loo xam ne fardu kifaaya la day mel ni bu ñu doon xool sëmb bi nga xam ne sëriñ bi sëmb na ko muy jàngukaay bi day mel na loolu la bëgg a misaal bayit yooyu la bëgg a jëmmal xam-xam boo xam ne dalay xamal sa borom xamal la noo koy jaamoo xamal la noo sellale jaamu ga waaye ànd ak xam-xam bépp bu am njëriñ ci àdduna di ko yokk di tax ñu mën a jëfandikoo xéewal yàlla indi ci àdduna booba xam-xam mooy day daal dugg ci biir loolu la sëriñ bi di junj ca bil Mustafa lii banal quddus madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kamadu loolu rek moom la bëgg moom la bëgg a taxawal dafay mel ni buñ dee xool ñetti mébét yooyu ñu waxoon ne moom bi amoon bi bi bi ñu bi ñu làkk ci suñuy bët ñetti bi bët yu ñu amoon te jotu koo sottal ci saayir day mel ni bu njëkk ba moo doonoon jàkka ji yàlla dogal na mu am taxawal nañ ko ak njabootam ay xalifaam taxawal nañ ko ba mu sotti aj màkka defal nañ ko ko ak njabootam defal nañ ko ko ndax alwaladu min kasbi abihi defal nañ ko ko na mu ko bëggee woon ci ci ci ci ci ci saahir jumaa ji àggoon na bu yàgg lu ca toppati dañ koy dollee yokk dañ koy tollee yaatal dañ koy dollee gën a rafetal loolu moo ci doll waaye àgg na ci jamono Cheikh Mamadou Fadil aj Màkka gi it njabootam googu defal ko ko tàmbalee ci Cheikh Mamadou Fadil ak njabootam gi ci des yëpp ba Cheikh Mamadou Fadil wax ca ne qasattu ziyaarata nabil karimi bila zaadin anil anil Cheikh Xadimi nga xam ne Sëriñ Tuubaa la ko doon defal moom kon ak ña ca topp ñëpp ci moom moom it dañ ko doon def ngir yéenee mottali mébétum Sëriñ Tuubaa moomu kon yooyu ñoom àgg na waaye day mooy ñetteelu mébét ma li tax mu mujj ci ni ñu ko jàngatee mooy day mel ni mooy mébét mi nga xam ne moom bu xasee tàmbali duutu àgg duuti duuti jeex mébétum xam-xam bu xasee tàmbali duuti jeex mën nañoo àggale tabax yi waaye jëmmi xam-xam ak dolli xam-xam duuti jeex ba ab nay tukki loolu sëñ Muntaxa di wax ne dañ bu mu laal suuf nan ko yenu kenn ku nekk ñun ñu fi nekk ñañu ñañu topp ci ñun yàlla na yeex ñañu toppaat ci ñun yàlla na yeex waaye ñu ñëw rek nañ ko yenu ndax ba yowmal xiyaam la jëm loolu la bëgg junj foofu loolu mébét moomu wala séenu boobu amut fu muy yem kenn du ko immigré a nañu immigré tabax ya a nañu immigré néeg ya waaye kenn du immigré xam-xam jeex na tey nañ ko immigré loolu kenn du ko def xam-xam moom day yokk sa saa bu addunay dox xam-xam di gën di yokk ba yemal qiyaam waqul rabbi zidni ilma loolu la sëriñ bi waxoon kon seen nañu noonu boo xam ne war na noo fop li nu am lépp def ko ci xitma bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa tabaxee yoon wi war nañ koo delloo siwaat ci liggéey boobu xitma moo moo moo amal ñaari mébét yu jëkk yi jumaa ji naa ko amal ci jamono yu jafe lool yoo xam ne bu ñuy xool lañ doon tabaxee jumaa ji ci jamono boobee moo gën a jafe li ñu woote moom la ñuy tabaxee daara ji loolu ñu doon tabaxee jumaa ji nam doon mënu lim bu ndaw mutut ñaari milliard waaye jamono jooju gën naa jafe lool loola ñu gën naa néew lool réaliser ko gën naa jafe lool waaye teewut mu di fasu ànd kilifa yi ba matal ko ci pas-pas aj màkk gi noonu la jafee woon booba am aj màkk jafe na lool waaye ñu am pas-pas booba ba def ko wuutu ja Seexul Xadim kon bu sëñ bi woote waatee mébét ñetteel li nga xam ne moom du jeex moom ci la pas-pas yi gën a war a dëgëre ci la pas-pas yi gën a war a yokkee himma boobu sëñ bi di wax himma am himma mooy ambition boo xam ne du yem fenn li ñuy li ñuy defal sëñ bi tey duutu yamati fenn lu waaye am mën ko cee def ta du jeex lu waaye am rek mën ko cee def te du jeex bu ko yàlla mën na suturaal ba mu defee loolu danañ dugg ci biir xidma bi sëñ bi ñaanal ñi ko koy defal ñu leen ñaanal bu ñu defee loolu danañ dugg ci biir ñaan googu inna allasina saaraahu li xidmati fa lahum diyaaru wasal jannati waq bi xawaaij alladina daamu fi xidmati wa habla umaaraamu fa kullu man xadamani aw zaara faxfir lahu fa fa fa dajjihi waxfir lahu aw zaara ñaan yooyu yëpp nga xam ne ku koy liggéeyal la ci jublu liggéey bii nag bokk na ci liggéeyam yi gën a am solo bokk na ci mébét yi nga xam ne moom la gënoon a mébét te nam ko ñaanee woon lii banal quduusu dafa am ba noppi yàlla ñaan na ko yàlla yàlla amal na ko kon sottal gi rek moo nekk suñu loxo ñu war caa góorgóorlu lépp lu waay am ci xam lépp lu waay am ci man lépp lu am ci doole def ko ci ba mu jeex tàkk te nga xeeb ko loolu mooy li nga xam ne moo nu mën a may muccug àdduna mooy may may muccug alaxira yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba nu fekke ak gal ga ca na ñuy irrigéré tabax yi ni ma ko waxee tabax yi nu ñuy irrigéré waaye xam moom kenn du ko irrigéré du jeex mukk moo tax ma jàpp ne mujj gi mujj looloo ko waral jàpp ne lu dul lu jeex la moom bu ñu ko tàmbalee noonu ko sëñ bi wax ba yóbbu xiyaam du jeex ndax mooy ndonal sëñ bi moom la fi bàyyi sëñ bi bàyyi fi dara la lu may ndonal diine ak jaamu yàlla képp la fi bàyyi diine ak jaamu yàlla moom la fi bàyyi muy muy ndonoom nga xam ne ci la ci la ko ci la ko ci lañ ko war a liggéeyal kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu zahab bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawrusi loolu rek la fi bàyyi jaamu yàlla ak liggéey loolu mooy ndono mu fi bàyyi sëriñ bi wax ne wërta laal suuf te li ñu tee laal suuf nag mooy xam-xam ak itte xam-xam ak itte xam mooy li ñu doon wax léegi itte nag mooy loo ca am xeeb ko loo ca liggéeyee sëriñ bi ci xam-xam bi rek da koy xeeb jàpp ne war naa yokk ndax ba ba ko diglee ba léegi ca la newoon ñu ko fi wutu ñëpp ci lañ nekkoon ba agsi ci sëñ Muntaxa mii kon moom day dikk di ko gën a yokk di ko gën a dolli mu bañ a laal suuf waaye muy gën di ko nag ndax waxul rabbi zidni alman jooju ñu wax mooy xamal ne kon du yam fenn kon liggéey la boo xam daal ñëpp war nañ cee taxaw kenn ku nekk def ca la nga man wax ca la nga man jéem ca la nga man sa doole sa alal sa xam-xam loo ca man lu nekk nga def ko ca bam yàlla mën na sottal ñu tàmbali ko te du àgg mukk ndax yow ma xiyaam rek lay àgg asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu